mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq ci weer wu màgg wi seen mbokk seen taalibe seen jaam bu xeebu bi Mouhamadou Moustapha Sarr moo ñëw di waxtaan ak yeen ci weeru koor ndax fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yàlla wax ci alquran ne di leen fàttalinte fàttalinte seen biir amaana mu jëriñ ma man mii ngeen di wax ak yéen ñii di déglu yéen nag mbokk jullit ñi nga xam ne yéen nekk ci gox yi fasanti fasantikoo ci àdduna bi yëpp ah, muy télé bu tedd tele bu màgg di Dak Médina TV yéen mbokk jullit ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu nuyoo lislaam nuyoo bu jóge ci xol di jëm ci jëmm yu tedd yi mel ni yéen di leen wax ne yal na jàmm nekk ci yéen yeen mbokk julit ñi ngeen xamne ne ñi degglu ci gox yu fasanti yoo fasantikoo yi ci aduna bi yeb ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci weeru koor bi nga xamne ne la yalla barkel ñu ñew nak tay ngir waxtaan ak yeen ci sahru ramadan al mubarak muy weer yi nga xamne ne mooy weer wu wi weer yi nga xamne yàlla moo ko jël jox ko sangu malaaka yi muy jibril alayhi salaatu wassalaam mu jox ko sangu prophète yi muy saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàccee ko ci sangu xeet yi muy xeetu saydina muhammad sallallahu alayhi weer woowu nag tey lañ ñëw di waxtaanee lan lañ ci waxtaanee tey mooy fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weer wi ndax yàlla dafa ne kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun dogale naa ci yéen koor kon ni ma ko dogalee ci ñi leen jiitu woon waaye nag weer la wax waxul benn bis waaye nag dafa ne yéen ñi nga xam ne ragal ngeen yàlla te koor kenn mënu koo def te ragaloo yàlla wax nañ ne jëfu doomu aadama yépp ci kaw suuf amna kuñ ko mësa defal ndax bo xolé budé dee cinq piliers l'islam yi ñuy wax shahadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqaamu salaat wa itaau zakat wa sawm ramadan wa ajjul bayt liman man istataa ilay sabil su fekke rek seede ne yàlla kenn la kennal ko ci kaw suuf am na ñu seede kennal beneen jëmm bu dut yàlla waaye bu fekkee ne natt azaka dong la am na ku ñu génneel azaka ci kaw suuf su fekkee aj màkka dong la am na ku aj màkka te demul aji màkka dafa dem rek pour nekk touriste waaye bu nekkee zakat la am na ku ñu génneel zakat ci kaw suuf waaye nag bu fekkee ne weeru koor la nag kenn mësul wooral nit ci kaw suuf kon wooru koor googu nak di fukki fan yoyu dafa am njëriñ ñu beure beuri yo xamne mom la lambol fukki fan yoyu nak motax awaluhu rahma mu ne les 10 premiers jours yep yermande la mbokk yermande de suñu borom moko xaj xaaj xaj ben xaj bi la wacce ci kaw aduna xaj bobu nak ben yermande bobu nak mo waral dom ak yaay yërmandi boobu nekk seen diggante ba nga xam ne lu doom ji jooy jooy lu mu guddi guddi yaay ja du nelaw ngir am yërmande ci doom ja waaye mbokki yërmande googu moo tax di kéwél su amee doom su ko gaynde jubee mu jaay ko bakkanam ngir am yërmande ci doom ja ngir doom ja mën a mucc yàlla wax ne yërmande boobu nag ngeen am seen diggante ni muy foor foor yépp lu muy rëy rëy yépp lu muy màgg màgg yépp man yàlla deey sama yërmande mu ëpp doole ci yéen fuuf ndax man yàlla ni ma leen yërëmee kenn yërëmeewu leen ko ndekete fukki fan yooyu doon yërmande yow mi nga xam ne yaa woor ci fukki fan yooyu jàppal ne suñu borom dalay xool bëtu yërmande malaaka yi dañ lay xool bëtu yërmande ñi nga xam ne mooy cent vingt-quatre mille prophètes yëpp dinañ la xool bëtu yërmande waaye suñu borom it dina la xool bëtu yërmande waaye mu ne nag yeneen beneen xaaj bi muy quatre vingt dix yi nga xam ne moo des ci yërmande gi suñu borom da leen koy dencal ba yowmal qiyaam yóbbul leen ko ba àjjana ngeen fekk ko fa yërmande googu nag mu ne àjjana nag foofa neex na neex goo xam ne ñe na lal ya nooy na nooy yoo xam ne mbàjj yi nañ teglantoo non la non la lal bu tollu waye kenn ku nek ci aduna gogu 33 ans rek ngay am do magen muk amna ben mag bu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yonent bi mu ne ko waaw mu ne ko man de dama bëgg dem aljana mu ne ko nga bëgg dem aljana mu ne ko waaw mu ne ko aljana de yow mëno fa dugg sono ci daagi dem nag sëngëm lu lol xawa a jaaxle ay wax bu ag ci rasulillah bi wolu ko bam ñew mu ne ko dama na la magge du dugg aljana waaye dama la bëgg a wax ne bés boo deewee suñu borom da lay tëgg ba nga am 33 ans 33 ans yooyu nag suñu borom moo lay dimbali ba nga xam ne doo ko weesu mbokk yi àjjana jooju nga xam ne moom lañu yàlla dig ci fukki fan yi nga xam ne mooy yërmande àjjana jooju nag amul sonn amul tawat amul amul amul benn métit ak benn coono ndax suñu borom nee na àjjana dégustation rek moo fa am amul lekk ba suur amul nan ba màndi lal ya nag noy na nooy yoo xam ne surur marfuha wa kawabun mawdu'a wa namaariqu masfufa mom nooy na nooy yoo xam ne lal ya doo fa tëdd muk di am courbature do fa tëdd muk di am wet bu métti do fa tëdd muk di sonu mba ngay yewu di am torticolis jamais dang fay tëdd rek muy banex bo xamne da fay neex ba jëm fo xamne ken xamul fu mu yam kon mbokk yi fukki fan yoyu nan lañ ko wara dundé dundee war nañ ko dundu ci xamné koor yalla daf ñu ko digal war nañ ko dundu ci tambali koor gi ci tawhid tawhid moy lan moy ñu xamné ki ñu sant koor gi mom moy yalla azza wa jalla mom mi nga xamné yalla mom mo kawé mom mo ñu bind mom mo ñu sak ndax damay wax né ñetti yalla moko mom motax moom war ko xamé ci digënté mak moom ba fukki fan yi koor gi mu xam njëriñ li nga lawaay mbokk yi fukki fan yi démarrage bi moo ñuy dugal ci li nekk ci diggu koor gi muy deuxième di jours yi waaye nag buñ jógee foofit ci yeneen fukki fan yi mujj yi fukki fan yi njëkk yi moo koy préparé yàlla nag wax naa ne mbokk yi du fay départ arrivé lay fay kon départ bi daa war a baax boo defee bo defé faux départ rek sa arrivé du bax ci koor gi kon tambalel koor bi ci ragal yàlla nga xamné ne kenn ku dul sa bop yunus sallallahu alayhi wasallam moo wax ci hadith ne man sama ramadan imanan waxtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi mu ne képp koo xam ne nga wéru koor bi mu ànd ak foi ak conviction ragal yàlla ragal yàlla ak selal ko mu ne gufira lahu ma taqaddama min zambihi yàlla dina la baal sa bàkkaar yi nga xam ne moom nga jiite woon nga jiitaloon te mbokk yi xanaa da ngeen a xamul ne weeru koor wi yàlla dana baal bàkkaaru bis yàlla dana baal bàkkaaru waxtu yàlla dana baal bàkkaaru semaine yàlla dana baal bàkkaaru at ñu ne suñu borom nu muy baaree bàkkaaru waxtu ñu ne boo jullee suba diggante suba ba tisbaar ñu ne diggante boobu la def ci bàkkaar boo xam ne yëgoo ko muy bàkkaar yu ndaw yi nag lañ wax suñu borom dala koy baal ndekete diggante àjjuma ba àjjuma muy bàkkaaru semaine boo jullee àjjuma ba àjjuma di ñëwaat bàkkaar yooyu loo fa def suñu boroom ci boppam dala koy jéggal waaye ndekete diggante weeru koor ba weeru koor mbokk yi bàkkaar yooyu loo fa def muy bakkaaru at suñu boroom dina la ko teggil mbokk yi ngeen gis ne koor gaa ngi noonu fukki fan yi nga xam ne moom ngay démarrer nag nan nga koy démarrer wax naa ne bu weeru koor tero nit ki war na préparer boppam ci wut mbalaan yu bees nit ki war na préparer boppam ci wut bu bees nit ki war na préparer boppam ci bagage yu bees nëgëm moom am na ko ndax koor gi jar na ko parce que gan la goo xam ne mbokk yi wóorul ba xam di nga ko fekkeewaat am na ñoo xam ne daaw fi lañ ko tàmbali woon ak ñoom ren ñu ngi ci biir suuf te gan la goo xam ne dañ ci war a profitoo occasion nag ci biir surface dernière minute te ñu nekk ci temps additionnel yi ah boo ko amee da nga ko war a exploité parce que bu occasion boobu rëccee xamoo kañ lay ñëwaat occasion boobu nag moom mooy weeru koor wi waaye nag di premiers jours bis bu nekk ma wax xew bu jot nga jënd nduróowaale lu jot nga ñaw ca dem ca weeru koor yi nag bu jotee nag yow nga war koo préparer war cee jënd bagage yu bees ngir màggal ko xam ne moom weer wi yàlla moo ko barkeel ndekete yoo weer wi ci la alquran wàcc ndekete yoo alquran jooju nag tedd gi mu tedd yëpp ak li mu màgg yëpp yàlla da koo jagleel weeru koor waaye ku mu jox alquran bal huwa quranul majid fi lawhil mahfuz alawal mahfuz la bind alquranu karim foo ko def muy bërëb bu tedd mu jox ko malaaka bi nga xam ne mu gën a tedd ci malaaka yi muy jibril malaaka bi wàccee ko ci prophète bi nga xam ne mu gën a tedd ci prophète yi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mu wàccee ko tamit ci weer yu gën a màgg ci weer wi muy weeru koor waaye ndeysaan mu wàccee ko ci xeet woo xam ne mu gën a màgg ci xeet bi muy xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yàlla bëgg na ci ñun yërmande moo tax fukki fan yii mu wàcceel ñu weeru koor yàlla bëgg nañoo jéggal ndax nit kat moom tooñ rek lay def nit daa mën a fàtte nit dafa sàggan waaye nit dafa gaaw a yéemu waaye nit dafa gaaw a bew yàlla ba mu xamee loolu nag yonent bi salaa salaam xam loolu nag xam xeetami nu ñu mel ak nu ñu gàttee fan ak nu ñu wéradee mu wàccee leen weeru koor ndakate mbokk yi fukki fan yooyu di yërmande ndakate képp ku feebar yërmande googu ci fukki fan yooyu soo ko wooree mu ànd ak foi ak conviction ndekete yàlla dalay may wér ci fukki fan démarrage yooyu nga gis ne li taxit yàlla di am mën yërmande ci fukki fan yooyu ndax ki lekk douze mois mbokk yi ku lekk douze mois boo lekkee douze mois weeru koor ñu ne léegi douze mois yooyu dañ ciy génnee benn benn boobu nga woor ko woor boobu mooy nga jaamoo ko sa borom ndax dañuy wax ne machine bu dee daw dafa war a dem am entretien ndekete yoo entretien boobu nag moom mooy weeru koor ci doomu aadama moo taxit yow boo wooree premier di première jours yi pour nga tàmm koor gi day métti ndax biir bu tàmmoon a ndékki ñu ne la dëkk doo ndékki léegi fajar ngay lekk ñu ne la waaw biir bi nga xam ne dafa tàmmoon a naan ñu ne balaa ngaa naan de jant bi dafa dugg waaw biir bi nga xam ne dafa tàmmoon a lekk ñu ne la balaa ngaa lekk de jant bi dafa dugg biir bi nga xam ne dafa tàmmoon a bànneexu bëccëg bi yëpp ñu ne la bëccëg bi yëpp bu ci bànneexooti moo tax fukki fan yooyu day métti ndekete fukki fan yooyu ndekete jaam bi dafa yor melokaanu yàlla te du ko xam melokaanu yàlla lay yor ñu lu tax muy yor melokaanu yàlla parce que du lekk bëccëg bi du naan daf day day terew bànneexu boppam kon melokaanu yàlla lay nekk la yor melokaanu malaaka lay yor kon fukki fan yooyu yàlla di la ci xool boo dogee tuuti ngay mën a mos da ngay sonn yaram bi daal di commencé laati kaafe waaye suñu borom da nga xool bëtu yërmande rek ndax yàlla moom xam na ne koor dafa diis te xam na ne koor moom yàlla su ko oyoful woon am yërmande ñun ci dix premiers jours yi wallaahi kenn du ko mën a woor wallaahi ku uum doo eggale kon yërmande yàlla rek moom la yaakaar te wane alxuraan day wax ne wala yamuru makarallaahi ila al xawmi alxaasiriin bu leen naagu mukk ci pexem yàlla ndax pexem yàlla dafa ñaw yàlla moom mooy faalun lima yurid mooy seet lu ko neex mu def ko yàlla moo moom jaamam yi mbokk yi weer la woo xam ne nañu yërëmante nañu jéggalante nañu bëggante nañu fonkante nañu baaloonte xàq te xam ne ci weer woowu kat yàlla ni ñu yërëmee dañ war a yërëmante suñu biir kon mbokk yi ah ñi leen di wax ne fukki fan yaa ngi noonu ak yërmandeem di leen wax ne naafila fukki fan yi nag mbokk yi lu simple la na waa fi nag yonent bi saa salaam dafa wax ne amut lim soo mënee fukki ràkk ak ñaar baax na soo mënee fukki ràkk ak benn baax na soo mënee juróom benn ràkk baax na soo mënee ñeenti ràkk baax na te mbokk yi naafila weeru koor dañ koy fay comme ku julli farata ah mbokk yi loolu lañ leen indiloon ah wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu